jaar def fi 12 ans defoo fi dara en retour nga ñëw di exiger wala boog di di lim sax loo xam ne c'est la conséquence yow ci sa politique. Mhm. tey booy wax ci wàllum immigration clandestine jeunes bi fi dee booy wax ci wàllum pauvreté booy wax ci wàllum ignorance et pour man yaa ngi contre sa camp <laughs> yaa ngi yaa ngi dugal bal bi sa camp. Mhm. parce que yéen a fi def 12 12 12 ans bi ngeen fi jógee yàggul aujourd'hui en 2024 bi ñu nekk on est en train de. Euh, d'exécuter le budget bi nga xam ne yéen a ko voté. Mmh. et quand on voulait faire le débat d'orientation budgétaire pour def euh, la loi des finances rectificative nga xam ne dinañ mën a ñun suñu orientation yi nga xam ne moom la ñu am ah ak li nga xam ne moom la ñu gis ni fa la ñu war a euh, orienter le budget mmh. mais yéen ñi amoon au niveau yéen ñi amoon majorité au niveau de l'Assemblée nationale yéen a ko bloqué woon. Ah, donc Sénégal mais ñoom nee nañu yéen a njëkk bañ def seen déclaration de politique générale d'abord. non gis nga la déclaration de politique générale. encore une fois la constitution dans son article dafa ne le premier ministre bu faloo day def déclaration de politique général mm-hmm. amul benn délai boo xam ne constitution bi wax na ko beneen bi mooy qu'est-ce qu'ils ont fait en réponse au premier ministre qui a fait une déclaration politique sur sa page Facebook ñoom ils ont violé l'article 3 du règlement intérieur de la constitution boo xam ne moom moo organisé le débat d'orientation budgétaire donc bu fekkee am nay politiciens yoo xam ne dem nañ ba ñoom jaral na ñu violé loi bi nga xam ne moo leen tënk au niveau de l'Assemblée nationale pour bloquer le fonctionnement d'un nouveau régime qui arrive ça interpelle donc loolu moo andi aujourd'hui ñu am régime bu bees boo xam ne président bi il a jugé nécessaire de de faire des élections anticipées xam nga élections anticipées parfois il faut qu'on revienne pour pour parler lu ko waral mm-hmm. et ce même régime la bi ma Macky Sall euh, annulé décret bi convoqué woon euh, le corps électoral ñoom ñoo nekkoon au niveau de l'Assemblée nationale woote pro woote proroger le mandat de Macky Sall ba décembre. Macky Sall bu leen déglu woon bañ a déglu le conseil constitutionnel aujourd'hui on allait dans kaw chaos donc il faut aussi ñuy rappeler les faits il y a combat boo xam ne encore une fois la jeunesse sénégalaise def ko mener et ce combat là espoir bi nga xam ne jeunesse bi am na ko y a un programme qui a été défini muy l'agenda 2050 boo xam ne dafa jël préoccupation sénégalais yëpp yaa ngi wax ay similitudes mais on est dans le même pays on parle pas du Canada on parle du Sénégal tey les données démographiques yëpp benn la les les moo que le Sénégal suuf yéen boo leen ñëwee boo leen defee le diagnostic ñeneen bu ñu ñëwee boo leen liggéeyul dara ils vont faire les mêmes diagnostics génnee les mêmes solutions dans l'animation ça peut changer aujourd'hui vous parlez des pôles mais Sénégal pôles yi c'est c'est lan mooy seen njëriñ c'est de développer les vocations économiques de chaque de chaque territoire. Mmh. permettre aujourd'hui sur l'équité territoriale nga mën ko promouvoir ba ci yi nga xam ne dañuy dawee di jóge ci yeneen région yi di ñëw dakaar di fi concentré wu parce que lépp est centré au niveau de là que ce soit les investissements que ce soit euh, la richesse parce que nguur bi fi nekkoon réussirul woon fexe ba dans les autres dans les autres terroirs mu fexe ba gap bi nga xam ne am na entre Dakar ak territoire yooyu mu mu mu ko. passant par les par les par les actifs. Mhm. mooy les ressources naturelles. ressources naturelles yi ñoo ko moom. c' est les Sénégalais qui l' article 25 de la constitution dafa ne les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mhm. et yow bu fekkee ni da nga ñëw am sa benn modèle économique bi ngay chanter alors que yow toutes les réformes yi nga waroon def te PSE nga boole woon ci defoo les réformes ces ressources naturelles là yow boo ko jëlee da nga koy exporter nga am ci sa dividende am ci sa part bu mu ndaw. Mhm. que yow mënoon nga ko defee neneen. neneen li mooy lan mooy nga fexe ba les contrat yi nga xam ne moom ngay signé mu am de transformation sur place aujourd'hui les ressources naturelles appartiennent au que dans les réformes yi nga xam ne war nga ko def doo def toutes les réformes ba sur les partenariats public nga mën a structurer des financements fexe ba liggéeyloo ndaw yi fexe ba créer des industries sur place nga mën a def les transferts de compétences les transferts de technologie loolu amul Macky Sall deful loolu il n'a pas réussi à euh, faire en sorte que ñu am une transformation structurelle de l'économie loolu lajj la. bu leer moo waral tey ñu am toute cette jeunesse boo xam ne teewuñ ci dara. c'est pas baal ma baal ma rek baal ma li ma c'est très que moom moo ko moom. xam nga non damay damay daaneel. Mhm. damay daaneel xam nga aujourd'hui vous avez parlé vous avez vous avez parlé de la jeunesse. Mhm. man li may wax j'ai pas besoin de chiffres ni de trop. venir su les documents pour en parler. On mm-hmm. parle du Sénégal. Mm-hmm. Même Sénégal bi la ñu la ñuy wax. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce nouveau régime ci si première mois yi mais il n'avait pas l'Assemblée nationale. yow boo yoree nguur da ngay am da ngay dem vers les sources de yi nga xam ne moom mooy financer ce développement. Est-ce qu'on avait les leviers le levier nécessaire l'Assemblée nationale pour faire les réformes sur les ressources souveraines que ce soit la fiscale euh, sur l'impôt que ce soit sur sur sur code minier bi code pétrolier bi ainsi de suite est-ce qu'on avait l'Assemblée nationale pour faire toutes ces réformes là donc yow fi nga waroon jëlëjee xaalis bi nga xam ne moom mooy financer ce programme sax amoo ko loolu aussi il faut ñu wax ko il faut pas qu'on soit là faire de la politique politicienne ñëw attaquer juste pour attaquer nga defay attaque personnelle sur la personne ne lii wala lële <coughs> euh, Mariama revenir aujourd'hui parler comme si il y a mois moom nekkul woon di xeex nguuru mag Sall man j'aurais man j'aurais bien aimé yow Mariama nga revenir ci seen position yi ngeen amoon ci nguuru Macky Sall il y a mois en arrière. merci beaucoup <laughs> mu ngi noonu euh, Samba euh, li nga xamante ne mënoo réussir leen ko quand même ci 12 ans ñoom bu ñu ñëwee jàpp ngeen ni plage jaara ñoom ñu gis ni peut-être c'est une continuité ci domaine boobu bu ñu ko dee doxal normalement daf leen war a réjouir <coughs> plutôt mu leen di frustrer non je excellemment réjoui euh, réjoui parce que en réalité ñoom ñoo doon wax la rupture mm-hmm. et quand il parlait de la rupture il passe il parlait à une table à rasa à un table à rasa c'est-à-dire que lépp li fi nekkoon dañ ko war a dindi totalement